numéro 2 Pastef. di son secrétaire général Pastef ñu ngi leen di fay bu baax. nan nga gisee mobilisation bi tey Kër Massar ngeen ñëw def si ko ci banlieue bi lan moo waral loolu. waaw euh, je crois que dañu toll foo xam ne ci Pastef euh, liggéey la liggéey nag euh, bës boo dee liggéey ba mu yaa ngi liggéey ba heure boo ko waree wane fe jotee rek ñëpp nañ xam ne liggéey nga ci lu mu mënti doon nag. liggéey day fay mu doon ci politique mu doon ci sport mu doon ci njàng ci utum xam-xam loo jox ak xam rek bu bési boo ne ko jotee day feeñ. lii nga gis nii te ñu war a noter ne que jour bu tombeeg euh, grève transporteur yi la grève transporteur yi kon ñun ñi nga xamante ne ñoo waroon a jóge ci gox goxaan yi kenn nekku fi ñi nga xam ne ñoo doon góor góorlu di ñëw nguur gaa ngi def yu salte di jël suñu militants yi jóge mbuur jóge Thiès di intercepter bus yi di leen delloowaat fu ñu dëkk mu mel ni senegal du dëkk goo xamante nit ñi dañu am la liberté de circuler la liberté de se de de de réunion Sénégal tuuti ci des rek bu ñu bàyyeekoo ko ñu sombrer dans une dictature boo xam ne nit mën a dootul mën a wax xalaatam ndax dem nañu ba nit bu partager trois émoticônes ñu yóbbu ko kaso mu fanaan fa 6 mois boo waxee sa opinion Facebook ñu def la mandat de dépôt boo waxee libéré diw sangam ñu door la 2 mois ferme booy dem ci meeting boo xamante ne c'est autorisé am liberté de déplacement ñuy kar say oto di la dellowaat fi nga jóge parce que bëgguñu réussite boobu am kon sénégalais yi ñoo comprendre enjeu yi xar seen tànk tubéy commencé nekk ci posture xeex boo xam ne yàgg yàgg yàgg bu ñu artuwul dinañu àtte te àtte dina su ndax dina fekk jëf ñaaw ba pare. dafa mel ni seen leader dafa woote appel à la résistance dafa mel ni jeunesse bi dañ ko wuyu mu nekk signal for boo xam ne yéen a ngi koy lancé envers l' état. non oppression képp koo xamante ne dañu la opprimé da nga am droit résister loolu c' est constitutionnel suñu leader lu mu wax c' est très clair kenn dafa ne moom ci boppam du seetaan ñu koy toroxal ci tooñ goo xamante ne dañ ko ko tooñ te bu naree demee noonu moom dafay résister parce que constitution moo ko ko jox. ñun ñi nga xamante ne nag ñoon ñoo xam lu mu doon valeur bu mu am pour ñun yaakaar bu mu doon pour Sénégal ak pour Afrique ñun tamit dañuy résister ci wetam parce que moom fu mu deewee rek ñu tëral ñu fa loolu rek a fa am merci beaucoup merci beaucoup.